alaaj Malick waaw man koy noppi ñu kii rapidement allez il faut écouter Moti. Ah, bon, pour l'information. Mm-hmm. Nous vous écoutons, oui. Ce qu'il faudra retenir, c'est qu'après huit heures de plaidoirie, quatre heures pour chaque partie, le juge a décidé de mettre l'affaire en délibéré pour réfléchir sur les arguments des uns et des autres et rendre sa décision le 14 décembre à 9 heures précises. Donc, ce qui avait été plaidé à Jugenchor, puis replaidé à la Cour suprême devant la Chambre administrative C'est ce qui aujourd'hui faisait l'objet donc des plaidoiries entre les avocats du président Ousmane Sonko, candidat à l'élection présidentielle de 2002, du 25 février 2024, et l'État du Sénégal, dont les services, notamment la direction générale des élections et la direction, la qui sont sous la coupe du ministère des élections, qui n'est rien d'autre qu'un habillage du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas, ont violé les droits et ont refusé euh, de lui reconnaître ses droits civiques en le radiant abusivement des listes électorales sous des prétextes en fait fallacieux. Donc, cela a été encore aujourd'hui débattu et nous attendons de voir Si le juge de Dakar va confirmer la décision de Ziguinchor ou s'il aura un autre point de vue qui sera nécessairement encore, qui aboutira nécessairement devant la chambre administrative, devant les chambres réunies de la Cour suprême. Donc si le dossier venait à retourner parce que c'est Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko, ou c'est l'État donc qui en fait à saisi la Cour suprême. La décision sera définitivement vidée et aussi bien la communauté nationale qu'internationale sera en fait fixée sur tout ce contentieux. donc ah, bon de l'État il s'agit d'informer si maintenant les uns et les autres veulent avoir donc euh, des informations ou des explications sur certains points qui ont été débattus. Bon, cela ne concerne pas cette assemblée, hein, cette rencontre. Bon, léegi ci lu gàttal moom moo di que Ousmane Sonko jàmbaarloo woon nag état bi ca Ziguinchor jàmbaarloo bi lu ko indi moom moo di dañoo jalgati salfaane àq ak yelleefam lu ne état bi def na ko pour bañ mu war a mën a bokk ci joŋe bi nga xam ne moom mooy am février te sénégalais yi war a tànn seen jiit mu di président de la république ci kaw loolu dañ koo dindi ci maanaam këyit bi nga xam ne ci la ñuy bind képp koo xam ne que war nga mën a sànni sa xob pour tànn ci bés booba muy liste électorale yi ci anam bu ñaaw anam boo xam ne que dafa jalgati yoon ci noonu la ko état bi defee looloo waraloon Ousmane ci li ko yoon may mu dem ci kanamu justice maanaam Ziguinchor foofu lañ ko waroon atte juge Ziguinchor bi def nañ lu ne pour nekk amul sañ-sañu atte ko kon boog warul maanaam euh, euh, àtte mbir mi li jigéen moom moo di que dafa jox Ousmane ko dëgg ci anam yëpp état bi dem ne nañ ko àttewaat cour suprême moom moo di fi nga xam ne moom moo gën a kawe. bañ demee cour suprême dëggal na ne que juge Ziguinchor bi moom la yoon jox sañ-sañ pour mu àtte wante mu ne ci àtte bi dafa am loo xam ne que yaakaar na ne que am na lu ci rëq kon boog rëq-rëq boobu nañu dellu ñu attewaat ko wante Dakaaru moom moo koy atte loolu moo ñu indi woon tey jii ci juróom-ñetti waxtu ku ci ne la nga am la ngay wax wax nga ko ci nga xam ne nag tey jii moom moo wuutu juge Ziguinchor bi te it euh, Cour suprême joxoñ ko ne ko na atte wat mbir mi kooku nee na ka lii mu déglu ne ñëpp wante dafa dafay dafa dafay jël ñaari fan mu di tey ak suba bu gannaaw suba muy 14 décembre ci 9 heures incha allah li nga xam ne moom la ko xelam may ak xalaatam dina wax dogal bi muy joxe dogal bi naka la tëddee kon boog fii rendez bi le 14 décembre à 9 heures la. léegi nag ak lu mu munti dogal koo xam ne kontaanul mu di état bi mu di président Ousmane Sonko am na sañsañ sañ delluwaat fa nga xam ne fa raay bi téene fa la mbaxana bi gën a kawee wante foofu du doon mbaxana ret day ànd ak tengaada moom moo di ñëpp ñoo xam ne ñu ngi foofu ak nu ñu munti day te nga xam ne ñoom ñoo jiite kuréel ya fa nekk ñoom ñooy daje. ñii nga xam ne nag ñoom ñoo atte woon dañ leen di fay maanaam nan la tuddee euh, ci astafurla donc beneen procédure la kon boog chambre yëpp ñoom ñooy daje dégg nga pour mën a xool ndax kii atte li mu atte teg na ko ci kaw yoon wala tegu ko ci kaw yoon kon boog su fekkee ne foofu yi dogal nañu suñu d'accord yi it am na benn fax boo xam ne état bi mun na fa jaar Ousmane it mun na fa jaar bu boobaa ñooñu bu ñu nekk lañu ñu atte ñoom ñooñu li ñu atte maanaam jaarul yoon bu boobaa maanaam ñëpp ñoom ñooy daje cour suprême bi yëpp président chambre yi te bu boobaa wax ji dootul dellu fenn dañ koy jeexal kon ñu xam ne cour suprême daal ak nu mu munti composé wu foofu la wax ji di jeexi kon lii dafa mel ni lañu ñu bamtuwaat kon boog xeex bi des na léegi nag kon ka avocat Ousmane Sonko la euh, li may ciy wax moom moo di lii lépp état bi dugal na nit ñi ci fitna fitna boo xam ne mën na ñàkk ndax lii lépp lu ko indi moom moo di atte aji bi te atte aji bi yoon dafa nekk su fekkee ne ko Ousmane dem na pour ñu jàpp ko jàpp lu boppam walla bu ñu jàppee Ousmane atte boobu saay na su saayee dañ ko war a attewaat ma yëgal leen ne que Ousmane bañ ko jàppee ca police la wax ne que atte Adji Sarr bi dégg nga weddi ko dañ ma attewaat kooku dem na ci procureur kon procureur mënul wax ne que loolu yëgu ko ñaareel bi ba mu demee bañ bañ ko jàppee yóbbu ko sëbi xutaan Ousmane bind na jox avocat ne na ko yóbbu ci greffier bi dem nañu greffier bi bind na këyit ne ko Ousmane weddi na atte bi kon dañ ko waroon atte wat wante kon dañoo xam ne que ñii ñu joteel fas yéene wuñu topp yoon te doole la ñuy doxe doole la ñuy jaaye xamuñu woon ne que Ousmane ba muy jox avocat bi boobu dafa joxaale prison bi greffe kaso bi këyit boobu pour que greffe bi yónnee ko procureur yónnee ko greffier bi ak ak ak ak greffier en chef greffier bi pour que li avocat bi pour ñu bind ko ñu bindaat ko nga xam ne kenn du ko weddi léegi nag li nga xam ne moom laay naqarlu moom moo di tëju nañu ci bureau tëju nañ ci bureau ne que lii nga xam ne que Ousmane moom la def moom moo di weddi atte bi weddi bi ñëw greffier bi jël ko ñun kii ñël greffier bi ne ko loolu faase ko nga dindi ko te bañ ko defee bañ ko defee dafa mel ni ab càcc la ndax yëgaluñu ko benn avocat yëgaluñu ko benn avocat ba ñu dem Ziguinchor foofu la ñu génnee atte boobu kon boog loolu état bu fekkee ne day dem di doxal li muy defal dara leeru ci ba pare ne ci démocratie la nekk wala dafa nekk ci état de droit kooku xam nañ ne que du dëgg léegi nag bañ ko génnee la leen bett moom moo di que dafa bind ne que lii Ousmane def mu ngi jaar yoon su fekkee ne ko daf ko jaarale greffe kaso ba boobu xamul ne que ñun ñu ngi denc kayitu greffe ko kaso bi ba pare ñu bind kaso bi ne leen que kayit yi ngeen war yónnee procureur pour yëgal ne ko Ousmane wedd na atte bi dañ ko war a attewaat ak bi ngeen war a yónnee greffier bi ndax yóbbu ngeen ko wala yóbbu leen ko ñu bind ñu nañu bés ba ngeen ko joxee lañ ko yónnee ñun ci sunuy kilifa kili direction bi direction bi ba mu xëyee la ko yóbbu tribunal procureur jot na bosam greffier bi jot na bosam kon book kon loolu wane na ne que juge bi la mu tëjoog procureur ñu jël seen décision di ko nëbb li nga xam ne loolu dafa ñun prévoir prévaroon nañ ko dafa fekk ne que wane na ne que en fait fu ñu munti jaare buñ jëlee bi avocat bi déposé dañ ko war a attewaat bu dul loolu mënuñu weddi ne que jaar na kaso ba te kaso bi yónnee na leen ko dañ ko war a attewaat kon boog léegi li wóor moom moo di jaay doole moom moo fi nekk li wóor moom moo di que état bi mënuñu cee am yaakaar li ñu mën a am yaakaar moom moo di que yàlla sàkkul ni ñi ñu doon benn yàlla sàkk na ay doomu aadama yoo xam ne que bu ñu ne dañ koo gëmit dañ koo ragal te ragal àndule gëm yàlla yàlla sàkk na ay doomu aadama yoo xam ne ay naafeq lañu yàlla sàkk na ay doomu aadama yoo xam ne que alal moom moo leen jiital loolu lépp dafa am te doomu aadama yi dañoo tasaaroo léegi nag yàlla moom moo ne attekat lii la war a def dafa war a am xam-xam pour mun a atte ba pare it dafa war a buy atte mu atte dëgg te fekk du ragal du nangu ger du nangu dara loolu nag ñàkkul ci attekat yi ci dëkk bi dañuy ñaan subhaanahu wa ñu tombeek li nga xam ne que mandarga yooyu la moom moom moom la digle moom la joxe ndax gëm nañ ne que bu fekkee ne yoon rekk la te ñuy atte te yàlla tax mënuñu fexe Moussa Kawane ba Ousmane du dem élection leen tax da leen taxaw mu bu leen bougé bu leen bougé bu leen bougé Jante sëriñ sëriñ da nga jël ah maître maître ici maître venez venez venez ici na jege na jege si na jege si